Senegal jërë ngeen jëf yaama nekk maa ne la gi ci diggante Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko tey la ñu koy lijjanti ca kanamu tribunal ubbi l'observateur jour de vérité mu di bésub dëgg noonee la ko bi tuddee mi ngi ñuy fàttali ne Mame Mbaye Niang moo pelentoon Ousmane Sonko doon ko toppee tuumaay wax ju mu ko waxaloon ci Prodac bi te mun a wax ju du dëgg njiital parti Pastef li dane woon ministre Mame Mbaye Niang jamono ji muy doon ministre de la jeunesse dafa jalgati woon tribunal tribunal woowoon leen keroog bëggoon leen a atte waaye Ousmane Sonko demul woon moo waral ñu convoqué waat leen ñoom ñaar tey témoigné nañu Ousmane Sonko mi demul woon ca procès bu njëkk ba nee na dana dem ci bu tey bi moo ko wax ci làmmiñu boppam ci live bu mu doon def ci page Facebook am nee na dina dem wuy ji yoon sàkku ne ci askan wi ku ko sax jot may nga ñëw tribunal seetaan si procès bi Vox Populi xëyee ci xëta mu njëkk kàddu Ousmane Sonko yooyee muy waxee ne dinaa dem tribunal wuy ji juge bi ndax ñii seen tappale yi dafa war a jeex nee na it dee dañoo jàpp ne mën nañoo jaare ci lii ba téema bokk ci élection ñoo ngi nax seen bopp les yëf li Ousmane Sonko fipp na boole di xuppaateeka dànkaafuwaate journal lañ fa bind ne lu jëm ci procès en diffamation bu tey bi diggam ak Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko ko fekk tribunal nee na leen procès bi procès public la ku mu neex mën woo ci yoon dañ ñoo may occasion ngir ñu leeral sénégalais yi tappale yeeg ñu def ci Prodac wax na démbit moom Ousmane Sonko ne gaay yi ñoo ngi parax-parax ngir bëgg a àtte coowal mbës mi mu di affaire Sweet Beauté wi ci biir weeru koor yi waaye ñiy jéem loolu nañu bàyyi seen xel yi ñuy fooy Macky bu dee ab confrontation la bëgg mu di defante dana ko doy sëkk news xëy di laaj ndax kii di Ousmane Sonko dana mën a génn ci coow li dox diggam ak Mame Mbaye Niang weesoo tuumay sos yi ko Mame Mbaye di toppe parquet bi tegalaat na ko yeneeni tuuma yu ci mel ne ay saag fooy usage de faux ci ay document administratif journal bi dem ci ba fàttali ne ci weeru mars bi fi ministre Mame Mbaye Niang songe woon wàlla sinekaay ci coowal Prodac li moo amoon dëgg ci seen kaw ci yooyu la jamono Cheikhouna Talla mi ne a daanoon juróom benn weeru sursis alamaanoon leen fukki millions yu ñu waroon bukki boobee màttoon waa la Sénégal yéenekaay bi di direct news mi ngi laaj baa du màtt Ousmane Sonko ñoom ñi bukki Mame Mbaye Niang bi màttoon di waa la li ñu xëy ci seen xët yu njëkk tey ji mooy li rappeurs yi Sénégal yi gonte woon démb mu di ab doxub ñaxtu buñ doon def ci mbeddi Ndakaar yu ngir di sàkku ci yoon mu bàyyi seen natango bii di Mokhtar Gueye di nit dof mi ñu tëye ci kaso bi la bind ne mouvement hip hop bi ci réew mi ñoo ngi rap njiitu inculpé na leen démb ba ñu mandat dépôt leen ci ñi ñu jàpp libération nee nañu am na ca benn waay bu tudd Xaadim Njaay ñu gis ko ci manifesté yi mu jëlub kalandoom di ceeb ay xeer di jox gaañi ñuy sànni policier yi moom waa ji di Xaadim Njaay sàndarma nañu ko loxo xamal na lay ne moom bokk ci benn parti politique li tax mu doon wuti xeer di dugal ci kalandoo di indil gaay ñuy sànnanteeg policier yi moo di dafa bëggoon a fayu ndax dafa ay policier yu ñaati fitna te 2023 gi yéenekaay bi gis na ne moo nar a gën a jax 2011 2023 gi l'observateur ne nañu at la mu dalul xelu kenn kenn doy di atlatu Sénégal bi faatu keroog Source A mi ngi ñuy wax ne waa ministre des sports dañu ko toroxal laata muy faatu ndax moom athlète bi di ndeem si yàlla kenn doy laata muy faatu ay semaine ci ginnaaw demaloon na boppam ci ministre des sports doon laaj ay primam ngir bëgg jox ko ko mu mën cee faju waaye yéenekaay bi ne nañu dàq bu bon lañ ko fa dàq ministre des sports bàyyi ba mu faatu muy soog di yagar yagar ak benn am di dem ci cité bari eliga ci di jaale ji def ko mbirum médecin après l'enterrement jàppkatu jaan wolof yi nee nañu jaana koy mujje yëral xët mu njëkku la tribune ca Sacré-Cœur benn agresseur moo fa doon agressé benn waay waa ji nangu paaka bi agresseur bi yoroon jam ko ko agresseur bi blessé ñu jël di yóbbu l'hôpital mu far dee ca yoon wa